wala bi ngay wëlbatiku yor si yoon ndox bi di dem ca buntu kër ga fa nga ko séen danga bëgg ma tontu la directement mbala ma détaayal la nga jàppale ma ni mu ware mbaam <laughs> dañu ne yaay avocat bi gën ci dëkk bi te lu ndaw li ma wax rekk jaxase na la def lu baax moo baax buy sànni ci mbooloo xamul ni mën ci yaa ngi ci jàmm gis naa laa gis depuis boobu dimbali ma dama bëgg a jóge fi ma nekk ngir dellu ci sama njaboot loolu moom des na ci yow bëgg gi nga xam ne bëgg naa ko sama liggéey teg ci yaay laa jigéen laa fen yi nga xam ni fenoon nga ko te mu mujjee leer nañ léegi nag xaalis bi ci boppam laa bëgg nga wax ma fan nga ko dugal du ma wóolooti kenn ci sama dund bu ma yàlla mayee ma jóge ci lii je pense que ni ñii nga jëf jëf ju bon ji ñoo waroon waxee nii mais pas yow maître comprendre dañ maa complot ngir yàq sama image waaye dinaa ci jële ndam. de quoi parlez-vous exactement mais yow dañu jël xaalis bu bari dénk ko xaalis bi fan nga ko dugal. amatuma pexe faw ma weer allo. allo oui na nga def. ça va. yaa ngi si jàmm. waaw ça maa ngi ci jàmm kooku la. oui dama bëgg nga déglu baax a baax. yow la kan. xam nañ ni yër nga xaalis sa kër mais benn quatre heures de temps lañ la jox pour nga indi ñu xaalis bi suñ la wax naa la rappeler si quatre heures de temps pour nga indil ñu xaalis bi fuñ la wax. mais yow la kan ba nga may jox ndigal ak ban xaalis. ɗiɗi ubeno nde watko xam nga lan laa la bëgg xamal beneen yoon boo woote wootee ci téléphone bii rek eh, allo lan la lan lañ la def ku la jàpp wax ma foo nekk. noppil noppil yow eh. léegi déglu ma bu baax a baax li ma yow xam nga dama doon baax baaxlu si yow mais yaa ngi commencé dépensé benn last deux heures temps laa la may pour. ñu indil ma xaalis bi sinon nga fàtte sa doom mais yow lan moo tax yóbbu woo leen police newoon nañ ma bu ma woowee police dañuy rey sama doom kon ni ko waxee yaay nga ni man kon bëgg naa sama doom dund kon yow danga bëgg a wax ne dañ la xoqatal nekkal ci sama palaas bu doon yow di nga joxe sa benn doom ji la yàlla jox ndax xaalis boo xamante ni yàgg-yàgg dina jeex mais permettez-moi de vous demander yow ci suba danga ne ma woon danga bëgg a génn fii pour dem ci sa njaboot léegi nga bëgg a wax ni benn doom bu góor nga am xam nga ne mën nga wax lu ne ci boo jaxasoo dama bëgg histoire bi nga nettali ma ko bu baax sa doom bu góor ñaata at la am ki yi exactement fan lañu nekk ku góor gi walla ku jigéen gi bul ma jaxase sa doom bu góor laa la laaj ah, sama doom ji fukki at ak ñett am ok dinaa ko woo wax ak moom. dimbali ma génne ma fi bu ko woowagum ndax pareeguma li may wax. dama bëgg nga xam leen mooy bëggaluma la lu bon lu baax rekk laa la bëggal te sa doom dinaa ko woo mu ñëw fii ma wax ak moom. alo bu ma gisulee sama doom ji du ma fi bàyyi sama xaalis lu ma wóor ne gaañoo leen sama doom ji. oui maa ngi lay gis tegal xaalis bi foofu te nga dem sa doom dina la fekk ci kër bandi kenn du am ci moom confiance damaa bëgg a gis sama doom. kii kenn du ci am ci moom confiance dama bëgg a wax ak sama doom da moo coupé na di jili luy def kii baay mais kii dama ko laal gaynde maa ngi yow ñoo fi ne du kii laalu ma ko léegi nan la ñuy def baay jéema la woo yaay moo wax xale allo. yaay yaay joolee xaalis bi nañ ma bàyyi naa la fekk kër ga. loolu doom. woy sama doom baat boobu du sama baatu doom woy sama nday rey ngeen sama doom baat boobu may dégg du sama baatu doom du sama baatu doom rey ngeen sama doom. mais kii doom ji dee na lu ñuy defati nii dañ dem. balaa police di ñu fi fekk man bëgguma dem police de man damay dem mooy lan damay daaw de toogal foofu yow. mais yow da nga bëgg a wax ni dañu rey sa doom. gis nga nit ñi dañoo soxor waxoon naa la ne dañ ma piégé. nu ñu mën a waxee ni sa doom bu góor dee na wala mi ngi dund. depuis boobu gisuma sama doom ji xaw ma lu tax ñu may peeje oh loolu metti na. yow ani xaalis bi fan nga ko dugal foo ko denc xaw ma nu ñu def ba xam ne yor naa xaalis ay weeri weer maa ngi yor xaalis bi sama kër te kenn nit rekk laa sib sone ci mbootaay mi moom xam ne yor naa xaalis ok gis naa ne bëggoo ma dimbali la soo paree dimbali ma toogal dimbali ma te yàlla tax yaa ma mën a jàppale dimbali ma te yàlla tax xaalis bi anamu léegi laa lay jot wax li fi xew yow danga ma bëgg a jàppe sa imbécile walla lan nan laa la mën a jàppee comme imbécile comme ni ma la ko waxee woon dama am ay détective yu xarañ yu ma nekkal ñuy liggéeyandoo ak man te def nañ seen enquête gis nañ ni doomu góor amoo ko doom bu jigéen nga am te Fatou la tudd hey yàqu na xay sama gémmiñ bi rekk a ma sonal àdduna bi am solo rien ne dit jamais sama xarit bul ci limal sa loxo on, come on, come on. Here we go. on, come on, yeah, come on, yeah. come on, come on now. Yeah. Oh yeah. Come on now. bon baaxul def lu baax moo baax buy sànni xeer ci mbooloo xamul ni mën a dal bokkam